jërëjëf mbokku téléspectateur u Leral TV euh, amis fidèles téléspectateurs toujours un plaisir euh, de revenir sur le plateau Focus tey nag euh, di àjjuma ñu sant yàlla bu baax a baax mi ñu may tawfiix ñu teewaat fii fas yéene ànd ak yéen ci seen émission focus euh, tey nag euh, dafa nekk plateau boo xam ni plateau bu spécial la ndax li nga xam ni moom lañu ñu war a waxtaanee tey dafa nekk tomb boo xam ni dina susciter plusieurs réflexions waaye aussi tamit dina créer centre d'intérêt yu bari bari dina leen toucher par rapport ak ci li ñu war a jëm war ko waxtaanee. mu dellu ci li nga xam ni moom mooy euh, nawetaan euh, actualité et perspective euh, dinañ ci ñëw fas yéene ci ànd ak ki nga xam ne rek moom mooy suñu invité waaye balaa loolu rek dañ leen di dégtal li nga xam ne rek moom mooy jëm ci suñu rubrique fu réew mi toll fu réew mi toll buñ ko waxee ba léegi dafay dellu ci wàllu actualité saa su nekk rek loolu dañ koy jukkee ci xabaar yi nga xam ni Leral TV moom mi ngi koy euh, jox ñi nga xam ne ñoom ñooy ay téléspectateurs di askan wi ndax s'informer en temps réel moom la ñu wax waaye balaa loolu rek dañuy dalal suñu invité euh, sunu doyen Lamine Assef Diallo. Euh, di produit pur produit de Hann Bel-Air waaye aussi tamit pur produit des mouvements navétanes ak euh, IASU yooyu yëpp dinañ ci ñëw waxtaanee ko euh, doyen c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau Focus ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu teg téléspectateurs yi. waaw maa ngi leen di fay mbokki Leral TV mhm. di am mbégte di am aussi tamit une certaine fierté et un honneur voilà d'être présent aujourd'hui sur ce plateau mhm. pour parler des navétanes. mais avant cela euh, dama bëggoon rek am une pensée pieuse euh, à l'endroit de suñu benn yaay bu dëkk foofu en village muy suñu yaay Kurtion euh, di yaay ci président Boubacar Thioye di yaay ci Iboulaye Thioye di bàjjen di bàjjen aussi ti Mafal Niang donc yàlla jëlee ko fi donc denc nañ ko démb ci Yaraax di am aussi tamit une pensée pieuse à notre frère aussi tamit Demba Diagne Samba qui nous a quitté aussi tamit il y a y di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla xare leen àjjana. Mhm. Euh, jërëjëf euh, ñaanal leen yàlla xare leen àjjana. Mhm. comme ni nga xam ne noonu la ko euh, sunu doyen waxee. Mhm. muy rek pensée pieuse à notre mentor. à notre formateur. Pape Samb. ñu gën ko xam ci Demba Diagne Samb. mu nekk koo xam ni il a marqué les esprits. waaye aussi marqué génération yu bëree bëri ci li nga xam ne jot na leen ko jox comme ci formation mhm. partager li nga xamante ne moom mooy xam-xamam mhm. son esprit altruiste mhm. son esprit de partage mais aussi lépp mu def ko dans l'efficacité et l'effacement mhm. ku gis euh, dëjëm bi ni mu demee mhm. waaye aussi tamit euh, di jaajëfal ñi nga xam ni ñëpp teew nañu fa mhm. au nom de toute la famille Samba sunu baay euh, Mayekor Samb ndax baay Mayekor Samb deret daf ñu boole ñu bokk ci wàllu deret waaye yow itam bokkaat ci wàllu pas-pas ki nga xam ne moom mooy Pape Euh, Samb nga xam ni nekk fidèle disciple de mm-hmm. Serigne Moustapha Sy euh, ndax ku xam li nga xam ne moom mooy fi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy daan toog mm-hmm. muy chaise boobu nga xam ne mooy chaise yu gëléem gi ak yeneen ci wàllu euh, décor mm-hmm. Pape Samba nekkoon na au cœur de ces créativités là ci esprit créatif boobu mu amoon moo tax ci dëj bi Serigne Moustapha si yabal ay ndaw ku mel ni imam Samba Diop mi nga xam ni moom mooy son bras droit ak mm-hmm. ki nga xam ni moom mooy Pape Khalifa Sarr mm-hmm. euh, nga xam ni euh, mbokk la ci Serigne Moustapha Sy di rakkam mm-hmm. ñoom ñu ñëw teew teewaay boo xam ne teewaay bu rafet la kon dafay wane ni rek euh, yaraax moom moo amaat ndam donte ñàkk gi metti na mais ñàkk gi c'est une victoire pour ki nga xamante ni moom moo dem di Pape Samb jàngal nañu lu bare bari ci ni doomu aadama. Mhm. mën dafa war a nekk koo xam ne ku utile la. maanaam ci sa dans sa communauté. parce que mhm. développement communautaire bi nga xam ne ci la doon liggéey. Mhm. yàlla na ko yàlla fay. ndax lépp rek ci ay nit la ko def. Euh, doyen tey ñuy waxtaanee li jëm ci wàllu nawetaan. tey bu ñuy wax ci nawetaan. c'est rare nag c'est assez mm-hmm. rare que mm-hmm. nawetaan mm-hmm. ñu ciy def plateau ci li nga xamante ni moom mooy télé télévision yi waaye nag Leral TV nag on s'intéresse de tous les sujets ak de toutes les activités du pays tey bu ñu doon wax ci wàllu nawetaan ban jeunesse nga ñu mën a defal ci historique li nga xamante ni moom mooy mouvement nawetaan waaw euh, Daouda de manière ramassée hein euh, le terme nawetaan dafay renvoyer à une saison boo xamante ne dafay am fii Euh, ci ci Sénégal. Mhm. muy euh, la saison des pluies. Mhm. donc euh, mu doon am ay activités. Mhm. les travaux champêtres. Ah, ci dëkk yi bu ngoonee gars yi bu ñu liggéeyee ba pare. ci place su village bi. ñu nekk fa di def ay ay théâtre di def ay activités sportives. ah Sénégal nag dans les années soixante dix au début des années soixante dix. temps yooyu. président Lamine Diack dem si yàlla si moo nekkoon secrétaire d'état au sport si je Moïse mhm. hmm? hmm. ñoom ak ñoom ñu mel ni ñoom Garan Koulibaly hmm. ñoom ñoom ñoo initié woon lii tey jii nekk nawetaan ah mu nekkoon une forme euh, boo xamante ne doon na permettre euh, de résorber le trop de joueurs yi nga xam ne ñu ngi woon ci championnat national ah mais tamit doon na permettre quartier yi animé euh, ensuite beneen fànn bi bu njëkk école de football bëriwuñu woon. Mhm. donc daanaka nawetaan ay yi moom moo nekkoon moo nekkoon creuser bi moo nekkoon fi nga xamante ne fa lañ doon tàggatee fa lañ doon tàggatee ndaw yi. Mhm. te nawetaan nag jur na ay kilifa. Mhm. mais jur na aussi tam de grands de très grands sportifs. ay ñoom Christophe Sagna. Euh, Mamadou Taw. Euh, Moustapha Ndiaye. Moustapha Ndiaye ah, pour parler de Hann. ñoom Baba Ndiaye doyen père Abou Sarr. Mhm. Euh, am Sata Ndiaye. les Adama Sarr ñoom Adama Sarr. ñoom ñëpp la am di fay ñoom ñëpp fa la jaar Issa Ba euh, Momar Ndiaye. Momar Ndiaye ah, effectivement ñoom ñoom ñu ngi foofu ñoom Cheikh ñoom Matar Cissé. Mhm. ah ñoom Néné Góor. Ah ah, ba ci ñoom Ndiouga Wade ñi leen mag tuuti ñoom El Hadj Sarr. de la ah. de nouvelle génération. avec cette nouvelle génération comme euh, là comme Pape Maïssa Ba. ñoom Pape Maïssa mon donc ñoom Pape <laughs> Maïssa on donc euh, ak xale yi nga xamante ne ñu ngi ci mm. ginnaaw di ñëw. effectivement donc mm. euh, mu nekk loo xamante ne lu am importance la. dafa nekkoon benn levier boo xamante ne doon na permettre askan wi di gisee. di frottante wu di saafante di def ay échange di partager ay expérience mhm. voilà donc loolu nag euh, moo waroon nekk loo xamante ne tey jii euh, facteur de développement la mhm. ah donc euh, nawetaan facteur de développement la waroon nekk mais surtout développement communautaire développement communautaire santan voilà merci doyen ci euh, mhm. li nga xamante ni noonu nga indi comme jeunesse ci mhm. historique gu nawetaan mhm. xamal nga ñu ni dañ ko defoon rek ci après saison des pluies euh, ci moment saison des pluies euh, comme vacances la doon tombeel ñu dajale ñi nga xamante ni ñoom ñooy élèves yi ak les amoureux du ballon daje di fo ci li nga xamante ni moom mooy football football boobu demoon ba jur ci génne ay produits ñi mu génnee dem nañ ba ñenn ñi ils ont joué Euh, à l'équipe nationale. Mhm. ni euh, représenté li nga xam te ne moom mooy Sénégal dignement mhm. waaye tey nawetaan dañu gis ni dem na ba ginnaaw. Mhm. bi ñu xamee la source authentique mais dem nañ ba. mbir moom bu demee ba commencé yaatu. <laughs> dafay am ay mbir yu ciy dugg. <laughs> <laughs> comme terme bi may bëgg a wax. Ah. xaw ma ci ban anam laa ko mën a indi mais foog ma tudd ko. Ah. parce que comme leeral la ñu wax. Ah, parce que xam naa doyen Asef moom euh, du faral di bëgg di tudd mot violence. waaye violence boobu dañ koy euh, saytu saa su nekk ci mm. nawetaan. Mm. Mm. waaye doyen gis nañ nawetaan euh, violence yi vraiment takar naa si na trop waaw. mais tey violence yooyu ana lan moo nekk la cause des violences ndax nawetaan dañu am problème de préparation. Mhm. au préalable ndax li war a jiitu dafa jiituwul. Mhm. wala aspect financier bi. Mhm. li ñuy wax naan gars yi <laughs> ñoom tikki yi daal na bari rek ah, na xaalis bu bari rek moom moo leen ñor comme ma tooñ ñoom Momar. <laughs> président zone yeeg. Ah. ñi nga xamante ni ñoom. Ah. <laughs> yan explication nga ñuy jox ci euh, violence yi nga xamante ni moom moo am ci nawetaan. voilà bon les source de cette de cette violence son multiples. Mhm. ensuite il faut dire une chose. Euh, les nawetaan nawetaan moomul violence. La navétane n'a pas l'apanage de la violence. Voilà, donc euh, c'est pas une quelque chose qui est exclusive ah, euh, voilà, étiqueter euh, navétane quoi. Voilà, bien que nag souvent les rencontres navétanes mhm. dañuy dañuy sa finit parfois en queue de poisson. Mhm. Loolu nag comme ni ko waxee sànq euh, source yi mhm. dañoo bëri te wute. Benn bi d'abord le sentiment d'appartenance. Voilà. parce que kenn ku que affaire de koñ la. affaire de koñ waaw affaire de koñ la ASC Mbaxal moo dëkk. fierté d'appartenance Kasanga moom moo dëkk Hann Village. Mhm. donc ñaari quartier la yuy daje. waaw donc euh, jongante bi day day day day day day day metti. Mhm. mais aussi tamit am na leneen lu ko lal parce que dañu commencé nag di dévoyer l' esprit l' esprit nawetaan. Mhm. nawetaan bu njëkk foo agréé la woon. soo mënul football nga dem defi théâtre. ñi mënul football mënuñu def. ñu kon nawetaan am na théâtre. am na théâtre nawetaan dafa doon am athlétisme ñun dañu doon organiser ay compétition athlétisme fii Yaraax. mais loolu yooyu yëpp lan moo tax amatul ci nawetaan. Oh, voilà parce que nag léegi euh, même ba ci ASC bi amatu nañu association sportive et moom la ñuy wax association sportive et culturelle. Hmm. mais maintenant de plus en plus on se rend compte que ni affaire bi. pratiquement football club l'activité culturelle l'activité culturelle amatul. football club kese la donc nga ñëw. Euh, loo xamante ne dafa waroon commencé mois de juillet jeex octobre léegi septembre lay commencé. Mhm. nga war a jouer deux matchs ah. buñ la dóoree ñu la dóoree nga toog donc loolu dafay exacerber cette violence la kenn du nangu kenn du nangu kii mais tey jii bu ñu multiplier woon euh, activités yi bu njëkk dañ doon toog waa tooñ waa ASC kaddu gi moo tudd léegi feeraay <laughs> xam nga. Uh-huh. parce que ñoom amuñu woon équipe. ok dañuy dem gars yi doon leen kat. Mhm. mais ñu xeex. d'accord parce que xam nañ ni buñ demee théâtre ñoom Kabou Dieng ak ñoom Wuri Diallo. ñoom Mbacke Seck ñoo koy gagné. ñoom Diol booy seet Diol tey jii. Uh-huh. c' est un produit du mouvement nawetaan. tey jii wax théâtre forum dem ba ASC Dialawaly jël relais bi. voilà ASC Dialawaly fi dem jël ay trophée hmm. xam nga hmm. jël régional et cetera avant cela ASC Kasanka. Kasanka ah moom moo ak ñoom Jibi Gissé. Hmm. les frères Gissé. ce sont des produits du du mouvement nawetaan. ok voilà donc euh, donc donc euh, paramètres yooyu noonu. mais aspect culturel yooyu. Mhm. tey doyen. ci mhm. nawetaan ci football bi. Mm-hmm. est-ce que tey ni ñuy euh, vulgariser football bi. Mm-hmm. bu amee ñu def affiche. Mm-hmm. wane journée yi wane préparatif yi équipe yi seen entraînement tout ça mais pourquoi pas loolu noonu tey du ñu dem fësal équipe théâtrale yi nga xamante ñoom ñi ngi ci seen coin di def seeni i mhm. répétition ñu mhm. dem jël leen ñu mhm. wane ni tey euh, équipe tel et équipe tel ñoo dajee ci wàllu théâtre est-ce que pourquoi pas loolu tamit ngeen dugal ko ci biir waaw xam nga foofu moom laa wax sànq quoi parce que foofu la gars yi xawee xawee lajj te loolu nag surtout les jeux de l'esprit voilà loolu ñu jaral lépp la doon am day am jeu de l'esprit ah euh, dafay am théâtre wax nañ ko sànq ah xale yi dañ leen doon organiser ñuy def ay course sac donc toutes les couches de la population étaient ku ci nekk yaa ngi doon gis sa bopp. man daal j'aurais bien aimé aussi ngeen initier si. li nga mhm. xamante ni sax moom mooy euh, production d'écrit. Mhm. waaw mais ren ren. ODCAV. ODCAV mhm. de Dakar organisé nañu euh, concours concours concours concours euh, concours dictée concours d'orthographe. ok waaw ku dëkk xale bu dëkk Yarax bu tudd Maymouna Fall je crois bien moo jël troisième. ah c'est bien. waaw ok donc loolu lépp pour war na ne dañu war a diversifier activités yi ba nga xamante ne toutes les couches de la population ku nekk gis sa bopp. mais est xam nga violence yi ba léegi li ko hmm. indi bokk na ci mooy euh, manque de communication absence hmm. de communication bi nekk ci hmm. mouvement nawetaan amul communication nawetaan day jot da ngay jékki-jékki rek gis stade yi ñu naan violence nangam nangam mais nawetaan day ñëw ba jeex euh, président ODCAV xamuñu ko. Mhm. ñu ko gis. Mhm. demul ci plateau yi. Mhm. deful communiqué gisuñu ko. en en tout cas. communication loolu moom yéen yéen wala ñun ñi nga xamante ni. ñun ñooy ñun ñooy ñun ñooy war a ñun la ñuy dut baaraam. parce que moi je me considère comme comme partie des vôtres. je crois que ni ñuy joxee la parole au politique di ko joxee la parole aux mhm. d'autres sphères de la société mhm. noonu la ñu war a wooyee bu ñuy euh, nawetaan di waaj a ñëw mhm. ñu woo les acteurs du mouvement nawetaan ñu toog ci plateau yi parce que tey jii euh, gars yi amuñu problème sax communication problème euh, des mots yi ñuy utiliser waaw les supports yi ñu utiliser loolu la ñu am problème parce que tey jii da ngay gis benn benn benn ASC bind banderole def ci ren di jékki xam nga nga gis keneen def ci la victoire ou la mort. la violence verbale. la voilà ah nga dégg booy di woy supporters yi. Mhm. nga dégg leen ñuy woy. di utiliser yenn termes yi voilà ci saaga la dem loolu saaga la kii la. Mhm. et les gens les laissent passer xam nga. Mhm. ensuite ko sànq tey jii si on faisait la promotion. te yooyu yëpp dafa war a nekk ay interdiction yu ñu war a jël mu nekk ay sanctions. ay sanctions. ay see bu ñu gis nga indi banderole. nga bind ci lu bind wul ñu nangu banderole bi nangu banderole bi boo ko bañee ñu sanctionné la prochainement sa supporter du dugg du dugg donc yooyu yëpp ay ay ay forme la yoo xamante ne mhm. euh, euh, pour lutter contre contre wala pour pour lutter contre cette violence bi nga xamante ne mu ngi gangrène nag mouvement nawetaan parce que dem nañ ba nga xamante ne aspect folklorique bi doon am euh, aspect sportif ni mu doon produire ay grands noms du football mhm. ah, di produire ay cadres mhm. de l'administration tey ji muy sama génération. et les anciens les anciens pensionnaires de des mouvements navétanes. Mhm. étaient des personnes instruites. non ay professeurs la ñu. Mhm. ay cadres la ñu de l' administration. comme ni ma koy waxee. Mhm. tey jii l' ancien ministre des sports Matar Ba. Matar Ba c' est un pur produit du. produit du ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. c' est ce qui lui a valu aussi euh, des réalisations. voilà de ces réalisations. voilà voilà voilà. parce que nag ñoom ñoo ko ŋànkoon. Hmm? le corps administratif et cetera et cetera ñoom ñoo ngankoon le mouvement étudiant ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ngankoon peut-être sax mhm. euh, euh, <laughs> des fois dafa koy dafa koy gars yi mhm. temps clandestinité mhm. euh, mooy temps sous nga xam na ay parti yoo xamante ne <laughs> gars yi dañ leen interdire woon léegi gars yi ils sont retrouvés dans le mouvement nawetaan moo tax booy seet ASC ñi ngi tuddoon ay jiwu mbañ ay ay ay moom sa réew nga doon dégg ay bokk jom donc euh, euh, ay jàppo mhm. donc. Euh, man sax déjà sax déjà la composition des noms. man mhm. je dis souvent que. Mhm. ñu ngi conceptualiser les noms. de jolis noms, de noms qui, qui, qui, qui la paix, mm -hmm. euh, la convivialité, la communion entre AIC, mais ce n'est que de noms. waaw mais ça ça ce qui a ce qui a amené à ça uh-huh. c'est parce que euh, maintenant les ASC euh, cette vulgarisation là cette communication là sur les concepts n'existe plus maintenant les gens se focalisent sur les matchs de foot li ma doon wax sama waa koñ waa Daaru Salaam ma ne leen mënu leen tudd Daaru Salaam ba pare bëgg a wane mais tamit foofu noonu boo bu ñu demee delloo ci zone 7A mhm. man dama gis ni tey euh, Daaru Salaam mhm. war na mën a nekk modèle mhm. ci li nga xamante ni moom mooy yara mhm. ndax lu tax man j'ai joué là-bas mhm. sama euh, première année ci nawetaan fa laa ko def j'ai neex neexle mais boo xoolee Daaru Salaam première année dafa ñëw ñu aj ko parce que dañ doon wax Daaru Salaam Seras la jege. Mhm. Daaru Salaam violence. Mhm. mais j'ai remarqué que ni parce que ñun suñu première année benn match lañ football cadet <laughs> eggali wuñ ko. <laughs> senior bi deux matchs la joué. waaw nag <laughs> sur euh. mais dama gis ni depuis lors Daaru amaatu fi. amaatu fi euh, beneen aj buñ ko fi aj amaatu fi sanction. Mhm. donc pourquoi tey Daaru bi ñu doon xaaree. comme ko fi mu jegee milieu bi et tout tey gisuñu leen ci violence mais hmm. d' autres haïtiens la ñuy gis tey hmm. ñuy hmm. def loolu ci wàllu ci wàllu violence donc loolu noonu tamit war nañ ci bàyyi xel mais ci communication aussi foofu dama leen di du baaraam parce que yéen aussi man mënuma concevoir nawetaan c' est vrai que sites yu du ma leen tuddee sites yu ndaw ndawaan yi maanaam le le les les sites les chaînes communautaires ñoom ñi ngi diffuser nawetaan mais nawetaan duñ ko gis ci benn chaîne bu classique tey war ngeen mën a ñëw signer convention ak Leral TV bu ngeen mënul euh, retransmettre euh, mm-hmm. tous les matchs. Mm-hmm. ngeen jël match qualification euh, élimination directe yi. Mm-hmm, waaw mais quart de finale demi finale finale. on est preneur mais côté boobu nag ñun suñu télé yi. franchement jàppale ñu football bi. ban télé nga gis fii muy teg. mais est-ce que yéen dem ngeen rencontrer les télé parce que ni affaire yi di doxee yow. Mhm. vous êtes un communicant. Mhm. vous êtes expert ci côté boobu. Mhm. xam ngeen yoon bi. mais nawetaan bu jotee. yow mi nga xam ne yaa yore sa produit. parce que télé noonu lay doxee yow mi yore sa produit bëgg sa produit mu dox. da ngay dem seeti télé ne ko ah man sama projet lii la bëgg naa nga tegal ma match quart de finale demi finale finale. ngeen wax. télé bi ne la ah man ci condition yi laa koy tegee nga ne ko man tamit ci condition yi laa mën a liggéey ak yow. loolu tamit man jàpp naa ne war na man a nekk. waaw waaw lu mën a nekk la lu lépp rek waxtaan la rek quoi. il faut que les gens ñu discuter. Mm-hmm. ah xool faisabilité yi. Mm-hmm. parce que nous on est preneur parce que euh, visibilité lañ soxla yéen visibilité ngeen soxla. ku leen mm-hmm. seetaan ngeen soxla. te te le nawetaan euh, les matchs nawetaan produit vendable la ah parce que ça draine. énormément de monde non li ci foule moo ko la lutte amul beneen. activité sportive bu koy drainer xam nga nawetaan. Hmm. tey jii euh, benn match nawetaan ñi ciy gañe moo bari tey jii di nga romb euh, maire bi ñëw toog di jaay ndox kee di jaay sandwich kële di jaay gerte caaf kee di jaay boisson ah bénévole yuy jël ah di leen di leen di di leen jox per hmm. donc ku ci nekk am nga loo xamante ne yaa ngi ko ciy joué te bu ngoonee di nga am loo yóbbu sa kër hmm. xam nga. donc côté boobu euh, vraiment euh, lu ñu war a mettre en exergue la. pour dire que ni euh, nawetaan du du du du rek violence bi nga xamante ne xeex bi nga xamante ne gars yi ci moom lañu ci moom la ñu focaliser wu. Mhm. xam nga mais mais dafa am yeneen paramètres les gens font des activités socio-économiques. Mhm. ils font des activités socio-éducatives bu njëkk nawetaan da nga doon organiser ay cours de vacances. Mhm. ci période année scolaire bi da ngay def ay cours de renforcement def ay alphabétisation xam Mm-hmm. def théâtre théâtre boo xamante ne c'est un théâtre éducatif mm-hmm. amul saaga amul xaste mm-hmm. xam nga donc loolu doon na permettre euh, euh, ñuy ñuy ñuy jàngal nit ñi di éduquer nit ñi xam nga mais aussi tamit nawetaan daf lay permettre aussi tamit nga am une certain un certain euh, euh, un esprit un esprit esprit d'ouverture un mm-hmm. parce que euh, c'est un damay wax day nawetaan c'est la plus grande démocratie ah ouais c'est la plus grande démocratie mm-hmm. boo ñëwee réunion CD mm-hmm. ah da ngay gis ni ku ci nekk tu es libre autonome tu t'exprimes mais nag dafañ ko dañ koy dañ koy dañ koy encadré dañ koy encadré donc mu nekk aussi tamit une très grande université da nga fay jàng loo xamante ne tey tey ji ñun tey ji am na loo xam ne xam nañ ko maîtriser nañ ko. Mhm. c'est pas à l'école qu'on l'a appris. surtout euh, l'aspect administratif. voilà mhm. ñun da nga doon ñëw bind correspondance boo ñëwee doyen buubu saw xotti ko ne la ne la baaxul. nga dem teg fële nga ñëw Mbacke Seck ne la li nga bind baaxul. yaan tàmbi du ne la non booy dégage lii dara baaxu ci ah? benn njaga jaa nga ñëw mu bindal la nga dem jël dem jàng nga dem ñu toog xam nga mhm. boo ñëwee. dangay dem ba nga xam ne da am maîtrise man tey jii macha allah toute forme de correspondance mën naa ko bind fu ma toog nii nii nii mën naa toog nii nii am benn inspiration bu ndaw j'écris un mhm. xam te loolu c' est grâce au mouvement navétane. que navétane moo leen formé. ci yooyu moo formé ci loolu. waaw parce que des fois sax dañ ko daan wax. Mhm. Euh, généralement. Mhm. Euh, navétane dañ daan faral gis même les capitaines. Mhm. on choisit ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy. parce que tamit boo nekkee capitaine. xamoo <laughs> <laughs> xam nga la moo ci grave. Uh-huh. moom lay wax booyu quoi. man leen booy des fois dañuy ñëw nekk bac plus N. buñ ñëwee fekk ñu toog quoi ñu commencé ñu bu ñu demee daaneel seen équipe. parce que dafa am ay termes yu nekk ci réglement généraux yi mais boo amul expérience mënoo ko gis naa fi benn ASC boo xamante ne xam nga lan lañ ko daan lee en sus de l' automatique le mot en sus de l' xam nañ gars yi ñu may xamal seen bopp en ah, sus de l'aromatique ah, en mais loolu aussi tamit yéen euh, au préalable. war ngeen mën bu nawetaan di jot. Mhm. ngeen def ci ay séminaire de formation def ay séminaire de formation jàngal les les capitaines des ASC. dañ koy def naka la defee. avec le président Momar avec le président Momar Faye que je salue au passage. parce que moom moo waroon ñëw. Mhm. xam nga au niveau de la zone 7A. Mhm. dañ koy organiser. okay. hein, de formation sur mais les est-ce que les euh, ñoom dinañ teew c'est que là c'est là où le bas ñu war a ñëw du ñu indi capitaine du ñu indi capitaine cadet du ñu indi capitaine senior secrétaire général ASC ba sax du ñëw te loolu ci cadet yi lañ ko war a tàmbalee voilà ñu màggaale ko voilà parce que tey ji même bind réserve mhm. dafa am nu ñu koy bindee dafa am ay termes yi nga utiliser sinon dañ bindal mal libellé ñun dal nañu en 96. waaw xam nga léegi da ngay ñëw taxaw. surtout arbitre yi. <laughs> arbitre yi nga xamante ni ruube lañ mën. waaw nga ñëw ne damay réserve ñu ne la motif. waaw <laughs> gaa yi defaa fois yi des fois ballaaw la ñuy def ko <laughs> ballaaw la ñuy def dañuy boole motif yëpp ñëw gi boo demee ñu daanil sa ay ASC après nga ne non waa zone ñoo ma ñoo ma ñoo ma kii. ñu ne waa zone dañ ñuy xeex dañuy xeex. fekk na yow yow yaa maîtriser wu taxi. parce que dafa am technique. Euh, de de de parce que motif bokk motif. ñoom ngay boole mën nga leen boole mais mënoo boole kii cumul de cumul de licence nga def rek Mamadou Ndiaye Ablaye Ndiaye ASC yi ba pare nga def motif cumul de licence fraude d'identité et cetera gars yi dañ lay mal liwél hmm, kon da ngay boole motif yi nga xam ne ñoo ñu bokk ñu ànd waa ok mais sur la présentation du texte aussi voilà waaw ok kon affaire yi daal j'ai sous-signé monsieur euh, Lamine Diallo capitaine de l'ASC Kassanga licence numéro tel porte réserve sur la qualification et la participation des jours mu cité jours yi xam nga ñi bokk motif mu cité motif fraude d'identité ñeneen ñi bokk motif mu cité cumul de licence et cetera et cetera. confirmation sur yaa ngi yaa ngi yaa ngi jox leçon ASC yi de yaa ngi leen di yaa ngi leen di jox exclusivité de. waaw mais te pourtant dañ ko bind ci règlement général yi. ok dañ ko ci bind ah non. <laughs> bukki duñ ko liir kon nawetaan euh, mën nañu wax ni. moo ko lal. waaw mais tey xam nañ ba passion bi moo ko nëbb. xam nga. Euh, j'emprunte euh, le terme du président Laye Cissé uh-huh. <laughs> moom boo ko waxee mu ne uh-huh. mu ne uh-huh. waaw moom boo ko waxee mu ne mu ne mu ne mu ne kii nan lañ koy waxatee la religion musulmane am na téeréem c'est le Coran ah? yahudi am nañ seen téere Torah Torah chrétiens yi la bible am nañu bible mm. ñu nawetaan suñu RG la ñu am waaw mm. RG mooy lan mooy les règlements généraux règlements généraux des nawetaan moom moo ñu tënk lépp a ci léegi règlements généraux yooyu mm-hmm. képp koo xam ni euh, dirigeant nga mm-hmm. war nga ko mën a xam mm-hmm. donc yéen bu ngeen defee formation bi ba pare séminaire de formation pré-saison est-ce que dina amaat suivi ci li nga xamante ni moom mooy ASC waaw moom laa xam nga euh, même ASC yi dañu bàyyi seen yoon hmm. parce que cette formation là euh, ce n'est pas seulement exclusivement au niveau de la zone hmm. la formation doit se faire aussi tamit au niveau des ASC hmm. ASC yi dañu war a former seen i délégués dañu war a former seen i dirigeants affaire bi nag di parce que man euh, je peux dire que li nga xamante ni moom moo indi la plupart ci malentendu yi ci violence yi am. Mhm. c'est-à-dire euh, amul ay activités. Mhm. parallèles yoo xamante ni dañuy saytu ci nawetaan parce que dañuy gis ne nawetaan bu commencé koñ bi tout le monde parle du football. Mhm. bu ngoon jotee terrain bi dafay fes del gars yi di ñëwee noonu euh, entraînement. Mhm. mais est-ce que jotul am bis bu entraînement jotee comme ñëpp heure football bi football bi moom moo gàddu. Mhm. Euh, bayre bi yëpp buzz bi yëpp ci football bi la nekk. Mhm. mais ci biir football bi bu gars yi di entraîner bu ñu entraîner ba pare ñu andi l'équipe théâtrale présenté ko. ñu xamante ni ñii tamit c'est des joueurs. yoo xamante ni dañu am licence di compétir. ci domaine bi ñu nekk xam nga sànq wax bu njëkk nawetaan. bu guddee nii gars yi dañuy def ay animation ay fuural man loolu yore naa micro fuural pendant presque quinze ans. te saaxo ñoom saaxo saaxo ñoom jibaa booy xamuñu fuural. xamuñu ko su ma ko waxee nii booy dañuy reetaan. waaw ah. bi lan lay wax. <laughs> sama xel dem ci Aïda Fatara. ay Aïda donc xam nga voilà. donc gars yi bëri tey gars yi animateur bi bi ñu ngi koy nuyu <laughs> moom tamit nawetaan produit parce que Aïda Patra laa muy dem ci télé yi mhm. ñu di ko ràññee ba lim ci def yëpp ci wàllu animation Aïda Patra produit nawetaan la parce que tamit mhm. jaar na yaraax toj na mhm. yaraax fuural yeeg nawetaan yi organisation yi tout ça donc ci fuural yooyu noonu ci nga doon orga invité troupe théâtrale bi mu ñëw booy fecckat yi groupe de danse l'aspect culturel voilà donc ci lañ doon ñëwee mhm. xam nga nga animé waat gàncax joindre l'utile à l'agréable mhm. boo seet au niveau de Dialawaly mhm. amoon nañ fa ay Boston Boys ak Zuluka Boston waaw ci Oscar des vacances mais ñu ñëpp ci nawet les Zuluka les Zuluka et cetera ah ba Oscar des vacances jël fa ay trophées et ah? donc loolu dañ ko war a a delloo si waat dañ ko war a delloo si waat euh, ba léegi rek euh, dañuy Euh, desandi foofu. parce que man aspect yooyu daf ma amoon solo lool. parce que football bi moom. <laughs> bugguma <laughs> ñu jël ci temps trop. parce que football bi gis nañ activité yi ni muy demee. football bi moom saa bu ñu ko waxee. Uh-huh. li ëpp ci football bi mooy violence moo ci mujj. Uh-huh. parce que tamit ku ñëpp tif li nga tooy. football bi rek lañ gis mu am violence. yeneen activités yi activités yi gisuñu ko ci. Uh-huh. mais beneen bi mooy bëgg naa aussi tamit ngeen xalaat ci biir nawetaan aussi yi nga xamante ni. dañuy dem di jàngi école. Mhm. mais doyen lan moo waral léegi nawetaan dañuy dem ba école des un mois nawetaan di soog a commencé. xam nga man moo combat chaque début de saison loolu laa wax gars yi man leen man tant que ñi ngi football nawetaan zonal. Mhm. même département tant ñu ngi koy football mois de décembre ah man kontaanu ma nawetaan mois d' octobre lépp dafa war a jeex. dafa war a jeex. man loolu laa gëm quoi. Mhm. effectivement dina permettre xale bi dem de vacances dina football nawetaanam ba mu jeex mu nekk loisir. bu paree dem def cours de vacances. am préparé mais nag beneen problème bi aussi tam mooy problème mu problème mu terrain yi bëreetul Ndakaaru te club dañoo bari. ak le retard du championnat. voilà waaw la fin de bi day dem ba ba ba ba dugganteeg ba dugganteeg nawetaan moo tax da ngay gis nawetaan dem ba mois de février beneen année mais man loolu dama ko contre. maanaam léegi di en pleine année scolaire nawetaan day. continuer di am nawetaan day continuer di am. et loolu dafay impacter négativement ci étude yu xale yi. non baaxul man moom vraiment je suis pour les navétanes. Mm. mais pas ci form bi quoi. et que même sax euh, commencé na di ni lu mm. bëree bëri en terme de de de qualité. Mm-hmm. Euh, xale yi nga xamante ni ñoom la ñu daan gis cadet. Mm-hmm. apparemment football cadet léegi amatul. waaw depuis quelques années yaa ngi nii ah. te nag football cadet moo tax ci navétane. mais am na ay boy yoo tey jii joué nañu senior sans pourtant ñu est-ce que xam nga ni loolu moo xew léegi est-ce que xam nga ni violence bi. Mhm. ñi koy indi pour la plupart. Mhm. Euh, ay booy la yoo xam ne ñoo waroon jouer cadet. dañu mer boo gisee booy yu sànni xeer ay 15 ans la ñu am 16 ans ay ay ay. waaw parce que dañu leen xañ lu lu. am solo ci ñoom. parce que ci biir terrain bi la ñu waroon di exprimer wu. exprimer wu wane ni ñoom dañu bokk ci koñ bi. dañu uh-huh. war a porter le maillot. de l'ASC de l'ASC donc malheureusement. waaye xam nañ xam nga ko ko dundul. <laughs> waaw xam. nga jaar ci cadet dem uh-huh. senior dafa neex. dëgg la parce que bi ngay nekk cadet. Uh-huh. yow bon tu étais cajolé. dañ la daan neexal nga nekk xale boo defee match jékki-jékki benn grand ñëw yëkkati 1000 francs wala 2000. <laughs> yooyu mhm. dafa neexoon. <laughs> Mhm. mais gis nañu ne trois ans yii pratiquement depuis Covid bi ba léegi. Mhm. ak euh, ni année scolaire bi di dugganteeg nawetaan bi. gis nañu ne yàq na tamit jàng xale yu bare bari. waaw ah, non mais loolu moom vraiment. Euh, man dama ci dama ci lancer un appel. c'est un plaidoyer que je fais. 31 septembre 30 30 30 septembre. ah nawetaan dafa war a jeex. et juin examen yi baccalauréat bu tardé baccalauréat juillet. entre le 10 le 15 au plus tard le 15 juillet dinañuy def bac. suñ defee bu ñu commencé euh, mhm. ñu ko commencé. Mhm. xam nga commencé dañuy pare. ah bien sûr. dañuy pare waaw. ñun dañ doon juillet nawetaan 30 septembre ñu football suñu final. dëgg yàlla ñun de bi ñuy football nawetaan dañ daan mhm. football ba nawetaan jeex. nga dem jàngi école bu ñu ñëwee école la fàttaliku waat. saison bi dafa jotoon jaar. waaw ah, euh, beneen bi aussi am na beneen aspect. Mhm. bu am solo bu ñu war a waxtaanee ci nawetaan. Mhm. mooy promiscuité bi am. Mhm. entre ASC. loolu tamit source de violence la que généralement loo koy indi <laughs> ay ASC ASC yu bëri mer mer ngemb la. su ma ci ni ko yi di waxee mer ngemb. waaw mer ngemb la ah. <laughs> parce que da ngay gis ñaari ASC yu bokkoon. Uh-huh. nga toog ba ci àgg pour pour un nom yi def scission dem dem dem dem dem créer. mais nag loolu nag. la fa daa kii loolu nag loolu zone yi nga xamante ni. Ah. Euh, xaw ma ko di la. Mhm. ñoom ñi nga xam ne ñooy joxe récépissé ay see ah, ah. parce que man je me rappelle ñun <laughs> ñun bi ñuy nekk foofu noonu euh, am na ASC boo xam ne dafa bëggoon bëgg génn ci benn ASC. Mhm. ñëw wax ñu ne ko ñett ñun suñu génération bu ñu demee ci la ci la ko gars yi ci la ko gars yi kii. Mm, ok beneen kii bi bu ci la ñu affilié. ah ba année 97 98 def nañ lu ne ñu leen déedéet waaw hmm. parce que tamit nag euh, mënoo ñëw benn koñ am ñaar ñetti ASC tey koñu yaatuwul xam nga bu fekkonte ne koñu yaatu la. Ah, am na espace quoi. waaw hmm. mais ñun suñu koñ yi gis nga ni mu mel. Hmm. nga bëgg trois 3 ASC génne foofu noonu 4 ASC génne foofu noonu. ñooñu bu ñu dajee ba pare ñu war a bokk benn terrain bu ñu entraîné. parce que xam nga dañu war a comprendre ne. lu mel ni tey zone bu mel ni Hann dëkku traditionnel la. Mhm. presque ña fa dëkk euh, c'est des ethnies yoo xamante ni conservatrices nañu mhm. ñooñu gis nañu ni dañuy dëkk toujours en famille. Mhm. te dañuy jegeyoo trop. jegeyoo bi ñuy jegeyoo yooyu. ñooñu sax la ñu war a gën a épargner à ce que. Mhm. ñuy jël ay ASC yoo xamante ni dañuy jege yoo nga xamante ni da ngay dugg kër gi. Mhm. benn partie bi ñu ne la ASC bi fii lañ faral mhm. beneen partie bi ñu ne la fii lañ far. Euh, mais mais encore une fois. keroog dama gis gars yi dugal ci kii bi benn benn benn match bu am entre. ñetti mbaar xaw ma kan ñu am cote part huit cent affaire bi def débat. ñu ne non pourtant ñun fii suñu zone fi fii ay code par euh, cinquante mille soixante quinze mille et cetera la ñu am man leen bokkul. Mhm. tey jii ñetti mbaar wala ASC Farba am na lay toll. nga jógee Somme ba Mbaxal. <laughs> bokkul de. waaw. Mhm. léegi kooku buy joué du am code part yu mag. Ah, bokkul moom. ensuite fii euh, suñu équipe yi ça ne draine pas foule. Mhm. ça ne draine pas mais pourquoi ça ne draine pas foule. waaw gars yi tant que euh, quart de finale. parce que aussi tamit nawetaan ñu gedd toog dañu bari. voilà dafa bari. ñi ragal a dem stade dafa bari. Mhm. waaw parce que ku ci nekk da ngay xalaat boo ñëwee ñu toj sa bopp. baa ñu toj sa oto. wala ñu toj sa oto. baa ñu jël sa moto. waaw. yooyu yëpp mu ngi ci. jël ah. sa téléphone bu affaire yi dégénéré. mais nag mais nag waa làmb ji yooyu lañu ñuy def ah. te pourtant kenn mm. waxu leen kenn stigmatisé waa làmb ji <laughs> waaw non <laughs> après small la ñuy def attaqué nit ñi da toog ba caag nga dégg ci télé bi ñun ne non bul jaar. Euh, fee mais nag ni mu amee ci làmb ji noonu lay amee léegi ci nawetaan. Ah, ah. te xam nga small dañ ko daan gis. ci ci làmb <laughs> mais léegi small bu demee ba commencé di am ci nawetaan. Ah. y' a problème non y' a problème ayca donc comme waxtaan nañ ci euh, indi problématique yi jëm mm. ci wàllu nawetaan yëpp. Mm-hmm. xëy na balaa ñuy tëj dinañ ñëw ci solution yi. Euh, lan mooy li nga xamante ni moom moo jëm ci euh, réalisation et perspective ci wàllu nawetaan. Mhm. tey da ngay dégg ñu naan la ñun bi ñuy football par exemple. bon mhm. on aurait pu euh, voilà être des des joueurs professionnels. Mhm. bi ñuy football. ndax ko xam ni ñun yaraax suñu lépp football la woon. mais dañ la daan wax say entourage football bi da te wax boobu ba tey ñi ngi koy dégg ci xale yi nga xam ne ñi ngi football toppal nawetaan bi nawetaan bi daf lay tardel mm-hmm. c'est vrai que am na aspect positif yu bëree bëri mm-hmm. parce que y a des joueurs professionnels yu ci génn mm-hmm. ku mel ni euh, secteur bi nga xamante ni lañ gën a maîtriser mu yaraax donte yeneen quartier ku mel ni Cheikhou Kouyaté ay joueurs nawetaan lañ y bu beaucoup de yoo xamante ne Cheikh Ibra Diouf waaw Cheikh Ibra Diouf à Valenciennes bu yaraax Cheikh ah, Ibra ah, Diouf ah, euh, récemment nekk champion euh, d'Afrique waaw moom tamit produit nawetaan produit nawetaan waaw léegi naka lañ mën a fexe ba ñii wax naan nawetaan daf lay tardal daf lay tardal nawetaan lan la jot a réaliser. waaw euh, réaliser. Euh, le plan matériel et jii euh, nawetaan dafay tabax nit. avant ngay wax footballeur beeg et cetera. Hmm. nit ki la ñuy tabax déjà. nawetaan nan lay tabaxee nit. waaw tey jii dina la jàngal ay ay valeur jàngal la nan ngay comporté woo. Euh, au niveau de la société mais aussi tamit euh, jàngal la ni yow da nga war nekk au service de ta communauté di di di aussi tamit euh, di di di di di di di tisser waaw des relation mais aussi tamit di valoriser la solidarité waaw tey jii tey tey jii bu nit amee problème da ngay gis waa mouvement nawetaan yëpp jóg mm-hmm. taxaw ci ah ba ba ba problème boobu saafara mm-hmm. waaw donc ensuite euh, dans le cadre de la formation mm-hmm. dans le cadre de la formation mm-hmm. il y a plusieurs gens qui sont passés par ça ah te jii même euh, ci emploi mm-hmm. ci emploi ah, parce que man gis ci ay boy yoo xamante ni même sax à Darou bi ñu commencé dugg ci bureau yi ñëw zone gis nañu ne am na changement commencé am. Mhm. di liggéey ci yeneen bërëb. ensuite sur le plan politique. Mhm. sur le plan politique gars yi euh, dañuy ñëw def seen marché foofu. tey ji on a la chance le président de la zone 7A euh, Momar Momar Momar Faye. Euh, adjoint la au maire au niveau de la. waaye ne nee nañ tamit yéen léegi nawetaan nawetaan da ngeen di politique de. Mhm. politique bi da koo de. waaw mais politique parce que parce c'est la manière de gérer la société. mais doyen c'est la bi aussi suñu demee ba euh, ñu ni ah. président zone bi euh, il est apériste l'autre président il est de de la mouvance. nangam non c'est le charme du mouvement navétane tey jii ça de travailler d'œuvrer pour le développement du du du navétane boo réunion CD navétane da nga fay toutes les casquettes. ñi nga xamante ne politique wuñu ñi nga xamante ne ay ndongo daara lañu ay waa daayira bi lañu comme yéen mm-hmm. di nga fa fekk ñi nga xamante ne eh, yeneen parti politique lañu bokk te boo boo demee ci politique ba ñu ngi tojante bopp alors que ñoom ñi ngi toog foofu noonu di waxtaan di jéem a trouver ay solutions yi nga xamante ne la décassure il se retrouve autour d'une table voilà c'est aussi tey jii mm-hmm. man maag président Momar bokkuñu bokk bokkuñu camp mm-hmm. bokkuñu camp politique de la paix moom moom moom moom moom mu ngi pur mais teewul mi ngi waroon ci émission bi mu yabal la voilà mu yabal ma. ok ah mais tey jii on a des relation yoo xamante ne extraordinaire. Mhm. c' est un gars que je respecte beaucoup. Ah que j' beaucoup. <laughs> du euh, def dara te tàgguwuma. à l' instar des autres membres du comité directeur que je salue au passage. Mhm. même au niveau de la zone 7C. Mhm. xam nga gars yi ñëpp doyen la ñuy wax. xam nga donc mu nekk des jeunes très engagés nag très dynamiques. non moom moom ku ko xam il a toujours été comme ça. voilà parce que ñun ñi aussi jot nañu bénéficier wu de sa de sa formation. Mm-hmm, mm-hmm. ci yu bëree bëri. Mm-hmm, donc kon loolu am na solo. mais beneen bi <laughs> mënuma wax ci nawetaan. sans pour autant ma wax ko <laughs> dafa xew nag <laughs> euh, muy euh, sonkorisation. wala aji saarisation. Ah, tudduma aji yaa tudd Sonko j'ai la sonkorisation. ma ne ma ne la man aji saarisation. Alimata Sakho a la ji daal. waaw waaw lëmbee na nawetaan. voilà da ngay dégg aji saar namoon naa la. keroog dama toog match booy di ko booy ma ne la aji na la. mais non Sénégal loolu lépp nag. dafay renforcer cette cette cette. convivialité mais nag la sonkorisation. Mhm. andi na harmonie. Mhm. ci stade yi. parce que da nga daan gis ay ay yoo xam ne dañuy ñëw. toog ba match bi jeex du ñu ay du ñu supporter am na am na supporter yu mel ah. mais <laughs> ils étaient obligés. <laughs> <laughs> phénomène la. phénomène la mais nag jarul interdiction. waa début bi bon peut-être les gens n'avaient pas compris ensuite peut-être peut la. mais gis nga après bi ñu ko bàyyee. Mm. parfois gars yi mooy loolu daal. Parce que bon, quand, quand, quand, quand, les, quand, tu ne laisses pas les supporters s'exprimer, alors que man, man, je préfère ça, la sonkorisation. Nous voir son qu'on a monal, que des que des supporters des sagas. Ben ASC, dañ ko suspendre je crois bien ci phase nationale bi. Mhm. dañu dérouler benn benn banderole. Mhm. def ci xaw ma Moustapha Diop président xaw ma et ci ci ci au phase finale. waaw loolu loolu moom loolu moom mbokku ci. gars yi dañ dañ leen daaj. loolu moom bokku ci. waaw parce que lu nawetaan day apolitique nag. ok kon daal. <laughs> loolu taxi ya ko wax du man maa ko <laughs> waaw politique bi daal mu ngi noonu ak nawetaan. voilà xam nawetaan xam ne nawetaan ak politique ñoo ànd. <laughs> Ah. parce que beaucoup de politique. Euh, mm-hmm. ci nawetaan lañ jóge kii baa ngi noonu. waaw waaw gis nga sama bu sama bu garaaw bi. bi bi bi bi moom Adji Sarr namm naa la bi moom Sonko namm naa la. Eh, gënal ma Adji Sarr namm naa la bi bàyyi ngay def. saako bi moom c'est la sonkorisation sonko ah. nam naa la xam nga loolu dafay wan ne xam nga uh-huh. loolu euh, dafay wan Sénégal mm-hmm. benn bopp la gis nga bu ñu ko fooyee ree ko rek mm-hmm. da ngay gis ni le climat s'apaise amee ah, noonu voilà nañ ko bàyyi rek euh, mm-hmm. buñ ku bëgg ku bëgg a wax aje nam naa la wax ko aje ah, <laughs> kon euh. loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy Sénégal wax nga ci réalisation yi ci wax ni ni ci côté aspect humain mhm. li muy yar tàggat ko ci nit mhm. effectivement gis nañ ci lu bare bari mhm. parce que tey ñun esprit d'ouverture bi ñu am ñenn ñi sax ci casquette ah. oustaz bi dañuy dem ba fàtte dañuy wax ne mais kii est-ce que est-ce que réellement oustaz la ah, mais que dafa am ci lu ñu jaar parce que tey ku jaar ci mouvement navétane ouverture d'esprit ngay am parce que dafa am ci yu bari yooy jaar tu as rencontré énormément de de de, de personnes de qualité. Mm énormément de de de de gens valeureux yoo xamante ni dangay daje ak ñoom. Mm-hmm. mais damay gis man am dafa am li ma jot a def ci nawetaan. Mm-hmm. donc dama jàpp ni du du perte. j'ai bon tiré naa ci leçon yu bëree bëri. parce que da ngay gis euh, conduite. surtout les arbitres. Mm mais arbitres yi tamit. Ah. doyen arbitre war nañ leen jàppale. waaw arbitre arbitre parfois. booy di leen di wayal nit ñeen di fay tuuti na de. waaw waaw waaw waaw waaw. waaw arbitre moom foog ma waxal leen. sama mbokk euh, arbitre ay jàmbaar lañ. gaa yi nañ leen jàppale te ku ne xam na ni nawetaan. bari na risque waaw. te ñoom passion moo tax ñoom. waaw bëgg métier bi. non li ñu leen di fay moom c'est dérisoire. waaw mooy nuyu doyen Aka. président Aka. <laughs> président Aka Euh, arbitre yi danañ leen fay waaye danañ leen jox lu doy waaw waaw vraiment ça c' est un plaidoyer que l'on fait ah au niveau des zones que gars yi vraiment arbitre yi nañ leen revaloriser parce que arbitre yi je les respecte parce que man joué naa sama carrière nawetaan mhm. sept ans laa joué mhm. benn yoon laa mos am carton jaune ndeysaan te arbitre bi boobu mhm. ci li ma joxee woon carton jaune mooy braille braille <laughs> braille waaye loolu lépp ci comportement la bokk ah. waaw parce que dañ doon jàngal eh, <laughs> ah, maanaam être en rek correct ci ah. terrain bi. <laughs> Uh-huh. arbitre bi ne ma braille ma dindi braille bi. Ah. <laughs> mu jox ma carton carton mais yooyu. yooyu uh-huh. yooyu yooyu ba léegi dafa mel ni léegi daal. dañ ko libéraliser. léegi bon ba léegi ah yi dañu dañu war a brailler ah mais. Euh, les les arbitres dañuy dañuy bàyyi mu jàll quoi. dañuy bàyyi mu jàll dañuy mu jàll quoi. arbitre ba ma joxoon carton jaune nag jigéen Ah, ñoom Amina. waaw <laughs> ah, Amina daal Amina Fall. boobu boobu boobu mobile ndeysaan amaguñ amaguñ gazon synthétique. voilà waaw moo tax ma ne. génération mobile. dañu am chance maa ngi wax Zeus si Zeus. Mhm. dafa am benn photo benn image Kasanga neexle. ndeysaan. Euh, ay quatre vingt quatre lay war a doon. Mhm. quatre vingt six wala quatre vingt xam nga Kasanga dugal but. ñuy wàcc boobu terrain bi gandus la. Mhm. montagne bi dafa presque sur presque deux étages. ñu ko daan tuddee tundee. voilà tundee ci montagne yi nga yéeg nii. Mhm. bu gars yi dugalee but da ngay gis ñuy wàcc bu ñuy dévaler pant bi. Mhm. non ay images extraordinaire. moom lañ daan wax poussière. voilà. donc donc donc c'était c'était extraordinaire c'était extraordinaire. moo tax nag dafay baax moo tax xale yi. xale yi xam yooyu parce que nee <laughs> boobu mobile dara amu ko fa. mais là c'est c'est l'occasion de rendre un vibrant hommage. Mm-hmm. au président a Diallo feu Talla Diallo. effectivement moom il s'est beaucoup ñoom doyen suñu papa El Hadj Mansour Tambédou mm-hmm. ñoom Mbacke Seck Yann Tambédou mm-hmm. ah clique googu yëpp ah waaw voilà te ñun Leral TV ñun football nañ fa ci stade bi voilà waaw ñun ak mm-hmm. waa Sénégal 7 yéen ak waa Sénégal 7 on a joué un match ah, ah, gis nga waaw foofu tamit euh, ma ah. ciy jaaraale aussi tamit di ko ñaan <laughs> uh-huh. euh, le directeur du stade doyen El Hadj Sarr doyen El uh-huh. ak euh, suma grand mu nekk nu mu tuddati alfa Alpha Alpha Ndiaye waaw TV est-ce ne Alpha Ndiaye en 2000 2005 moom mooy meilleur euh, buteur de la deuxième division. non Alpha Alpha il est pétri de talent. il faut gars yi gars yi dañu koy fàtte avec l'ASC xam-xam mooy année bi xam-xam di yéeg. Alpha Ndiaye Alpha Ndiaye en 2005 en 2005. il était le meilleur buteur le meilleur buteur de la, de la division 2. voilà Sénégal voilà. ah waaw gis nga performance yooyu noonu aussi tamit doyen ah. ci moment yi nga xamante ni mooy moment wu na nawetaan yi mhm. nañuy tudd exploit des anciens mhm, mhm, surtout waaw l' des anciens loolu tamit nañ koy bàyyi xel bu baax a baax c'est c' est très important kon doyen xam naa rek ci dernier point bi dañuy ñëw ci li nga xamante ni rek moom mooy perspective yi euh, comme li ñu dese ci temps euh, cinq minutes la comme ci wàllu perspective ana tey nawetaan lan la ñuy xaar ci nawetaan ci perspective. waaw nawetaan dañ koy xaar mu delluwaat ci yoon wi nga xamante ne waru ko woon wàcc. Hmm. moom mooy sa creuser bi nga xamante ne moom moo doon participer activement au développement harmonieux de la communauté. Hmm. di former ay cadre di former ay footballeurs di former ay basketteurs di former ay hommes de culture. je crois que paradigme yooyu la ñu war a delloosiwaat buñ ko ëndee nag dañ koy dañ koy coller ak ak ak actualité bi. Mhm. waaw parce que nag mënoo ñëw nag gars yi ni ñu doon fonctionner il y nga ñëw bëgg ñu ñu ñu ñu ñu fonctionner noonu. mais ci côté structure. Mhm. lan la nawetaan jot a lan lañ mën a xaar ci nawetaan ci perspective. waaw mais aussi tamit infrastructure. waaw infrastructure il faut aussi tamit nawetaan déjà euh, ñu mën a am ay appui. sponsoring bi ci mouvement nawetaan daf ci war a bëri dafa. mais sponsoring moom doyen mënul ah. ñëw feek dugg leen ci média yi. waaw waaw il faut ah, que tamit ñu ngi leen tàllal loxo. waaw mais nag Leral TV amul problème. <laughs> di tàllal loxo. waaw pour la pour la pour la saison prochaine. voilà et bu fekkee ni. non pour la finale zonale. pour la finale zonale pour la pour la finale zonale. ñëw leen discuter ak Leral TV. ñu ñëw def ko. Mhm. muy. Euh, ensuite ensuite beneen affaire à l'instant am na benn gars yu ko fi defoon. Mhm. Ah, je crois que ñu bëri ci la ñu ci la ñu jaar sax ba tey ji nekk am euh, homme de média. Mhm. ah euh, parce que les gens offraient des des des formations. Mhm. aux jeunes des ASC. ñu ñëw euh, dugal leen ci structure structure médiatique yi. ba tey ji am na gars yu bëri tey ji ils ont pignon sur rue ci ci ci ci média yi foofu lañ jaar. ok waaw donc je crois que vole boobu aussi tamit. au delà du sponsoring volet boobu aussi tamit ASC dañ koy soxla. waaw mooy ASC troisième génération bi ñuy wax. waaw de seen finale. en tout cas Leral TV euh, ouvre ses mhm, mhm. à toutes les ASC et mhm. donc les zones je Mm-hmm. mais particulièrement nag suñu zone fi nga ah. xamante ni <laughs> mooy suñu cosaan ah. muy muy yarax uh-huh. waaye tamit noonu lay jaaree aussi tamit euh, nuy waa kër Mbay Fall euh, yëpp tamit euh, ñoom mm-hmm. ñi ngi fay amal tamit lu mel noonu ci mm-hmm. nawetaan voilà gis nga <laughs> suñu ASC yëpp a nekk tamit ay jogante ASC Déggoo ASC Manko uh-huh. ASC Jumenga Cité Saba parce que ñooñu ñooy ay ASC yi ma jege <laughs> kon di leen wax rek ni ñu wattandiku li nga xamante ne mooy violence bi kon doyen nawetaan euh, comme perspective yi mhm. ñi ngi xaar mhm. nawetaan am lu mu teg lu mhm. concret loolu tamit ñi ngi leen ciy xaar ñu bàyyi la rek nga joxe kàddu yu mujj yi euh, daal di yëkkati jotaay bi ba beneen waaw kàddu yu mujj yi rek di la di la jaajëfal ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonante bi mais di jaajëfal aussi tamit euh, le président Momar Faye mm-hmm. et l'ensemble du comité directeur mm-hmm. euh, de la zone 7A mm-hmm. et aussi de la zone 7C euh, à travers le président Tchatcha ak ñoom Ndongo Faye ñoom ñëpp ah, pour leur engagement leur détermination voilà ñoom ils faut tout pour que match yi am te booy seet ñu indi sécurité bu doy ci stade bi te bo léegi sax booy xeexatuñ ci stade bi dans les quartiers la ñuy la ñuy xeex donc donc euh, loolu moom vraiment mais aussi tamit di lancer un appel à tous les supporters waaw di leen wax ni vraiment mi au calme waaw waaw au calme quoi. Mhm. nañu jongante. Mhm. mais bu ñu xeex. Mhm, bu ñu xeex mais aussi tamit euh, li may lancer un appel aussi tamit aux aux zones. Euh, les activités de théâtre. nañ ko gën a ñoŋal. ah am na solo ko. te activité théâtre yooyu gis nga tele yi. dañoo soxla contenu. voilà dañoo soxla produit. gis nga bu ngeen ko defee comme Oscar des vacances. Mhm. nawetaan balaa match di commencer. Mhm. ngeen dugal deux théâtral mhm. ñu compétir ci biir stade bi kenn ku nekk def sa prestation balaa match yi di commencer. suñ defee suñ pra léegi stade yi léegi am nañ ay lampes alhamdulilah defar nañ ko ba mu baax. mën nga jouer nuitamment mais buñ ko defee ñu gis chaque. journée. Mhm. ay yi nga xam ne ñooy joŋante. Ah, euh, seeni club théâtral ñëw def seen prestation. Ah, buñ paree toog déjà mhm. l'aspect culturel. Mhm. dina coiffer li nga xamante ni moom mooy. ak activité sportive ah, parce que ñun booy seet. loolu xalaat leen ci nous on essaie. chaque match on amène de la de la sono. bu ñëwee ñu yore micro bi man maa yor micro bi. di def ay plaidoyer di def ay rappel historique. di wax euh, palmarès. yooyu baax la. li des ci kii bi. waaw ASC yi nga xamante ni. Mhm. xam nañ leen ci wàllu théâtre mhm. même bu fekkee compétition théâtrale bi amul. Mhm. andi leen leen ci phase élimination directe yi fi ñu jëm ci quart de finale demi finale. ngeen indi chaque. acti euh, journée. ngeen indi benn troupe théâtrale ñu wax ci li nga xamante ni moom mooy thème bi. wax ci ça je vais proposer naa ko proposer bu bu yàgg mais comme l'occasion. ça je vais proposer ça am occasion pour wax ko. boo demee nga yeggee ko président Momar. président Tchétcha ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci zone bi yëpp. Ah. Ah. kon mbokk yi tey ñu ngi doon waxtaanee ci wàllu navétane actualité euh, réalisation et perspective mouvement navétane nag ku ne xam na ni li ko taxoon jóg moom mooy que. askan wi ñi nga xam ne ñooy quartier yi ñu daal di booloo nekk benn quartier bi am harmonie quartier bi am ambiance quartier bi am benn souffle euh, boo xamante ni dinañ ko am jëm ci wàllu mbokk ak mbokkoo mbokk yi euh, violence bi nga xamante ni ñu ngi koy saytu ci wàllu nawetaan yi yaakaar naa ni war nañ ko mën a éviter yàgg naa di ko wax àjjuma bu jotee da ngay gis ay see yëpp ñooy daje ci benn juma di déglu benn. imaam. pourtant imaam ba am na ASC bu mu dëkk. waaye yeneen ASC yi ñu ngi toog di ko déglu ñun ñëpp ñooy julleendoo ci benn bërëb bu buñ paree ne asalaamaaleykum asalaamaaleykum lan lay firi moom mooy yàlla na jàmm nekk ci yow. kon mbokk yi ñun suñu julli jumaa lu mu ñuy jëriñ. wax naa ko ci yaraax parce que yaraax violence bi dafa am. ba ñu aj li nga xam ne mooy nawetaan yi ba aj ko ci dakaar au niveau de l'ODCAV kon. man mënuma concevoir yaraax daayira yi niñ fa bare mhm. ñuy daayira mbay yaa ñu doy ah. Baay Faal yi di cant mhm. te bu ñuy cant kat du ñu xam ne kii mbaxal la dëgg du ñu xam kii jaalawaat la dëgg mbokk yi nañu dawal suñu xel mhm. gis nga en moment donné foog ñu nekk ay nit mhm. du ñu ay mala mhm. parce que mënoo dëkk koñ jaalawaali koñu mbaxal sa rakk bu jigéen dem sëyi mbaxal sa rakk bu sa rakk bu góor dem jël soxna koñu koñu koñu mbaxal kii dem koñu waldaan kii dem koñu kasanka ñu sëyee noonu noonu ñëpp bokk ko ñun ñëpp naka la ñu mën a demee koñ ak koñ ñuy sànnante ay xeer ba ay gaañu gaañu di ci am gendarmerie di fa ñëw mhm. te li ci gën a aberrant mooy gendarmerie bu ñëwee ba ñu këyit ñenn yóbbu leen léegi mbokk yëpp ay dajawaat demaat toog di waxtaanaat <laughs> kon mbokk yi nañu dawal suñu xel waaye te bañ a topp suñu passion mhm. yaraax dëkk football la mhm. waaye dëkk la boo xamante ni mérité ay violence mag ñi ay mag ñu baax ñoo fa jaar ñoo ko nekkoon defar ko ba mu baax kon génération bi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk nekk leen nit waaw parce que loolu tamit mooy li nga xamante ni moom mooy message bi parce que ñun ñii dañoo jaar ci nawetaan mhm. football nawetaan mhm. ba tey ji yàlla dogal ñu ngi toog fii tey mhm. ci télévision bi di exercer li nga xamante ni moom mooy suñu métier te tamit li nga xamante ni mooy suñu formation li ci ëpp solo nawetaan daf cee participer kon yàlla yàlla def jàmm def ko ci yeneen ASC yëpp ñuy wax mouvement nawetaan aussi tamit dee leen wane seen produit yi ci télé yi ñëw leen Leral TV <laughs> wala sa demi-finale wala sa quart de finale ni sa zone moom <laughs> xam naa ni code part yi dana gën a yokk ay yi dinañ gën a kontaan kon doyen jëf ci euh, euh, réception bi jërëjëf tamit ci teewaay bi yàlla na yàlla fay mm-hmm. yow moom ku ñuy tiitaroo nga ah. mm-hmm. <laughs> waaw ndax am na sama benn chronique sax euh. Euh, bind naa ci sa tur ndeysaan waaw mooy bi ma def ci euh, sur la femme leeral point net moom moo ko publier waaw chronique boobu maa ngi jël benn extrait <laughs> uh-huh. ci loo bindoon sur la femme ma ne jël naa propos doyen Lamine Assef Diallo kon waa leeral point net bu ngeen liiree chronique bi Assef Diallo bi ngeen gis foofu ci sama chronique bi <laughs> uh-huh. mooy doyen bi tàggat. kon loolu moo nekkoon émission focus bi. di leen jox dig daje ba àjjuma ak jàmm ci beneen numéro. asalaamaaleykum wa